kon mbokk yi ñu ngi dellu di leen fàttali rek na ñu ngi àndoon ak sëriñ Khalil Mbacke moom Serigne Moustapha Afsa euh, maam Thierno Birahim ak soxna Mominatou Mbacke moom Cheikh Saliou Mbacke ñu fekkoon ko fii ci daaraam fii ci Jannatul Ma'wa ñu seqoon ak moom jotaay bu aju ci wàllu politique. Euh, léegi kon Serigne Khalil laaj bi nga xam ne moom laa laaj te mooy laaj bu mujj bi jamono yi nga xam ne ñu ngi dëdmal ay élections mu mel ne réew mi dafa yëngu ba ku nekk di tiit euh, ci lu fi war xew. Euh, mu mel ne ku nekk rek yaa ngi wax jëmale ci jàmm ñu bëggoon nag ñu jeexale ci nga dénk euh, jullit ñi jàmm maanaam lan la la maanaam euh, soññi leen ci ñu jaar ci yoon woo xam ne nii buñ fa jaaree jàmm am te yoon woowee mooy yi nga xam ne nii moom la yàlla digal jaaree ko ci yonente yi ak sëriñ si nga xam ne moom lañ yaakaar yoonu jàmm woowu nga jox ñu ay conseils yoo xam ne nii moom la ñuy tëjee bisimilah. waaw jërëjëf xam naa loolu moom ñaar a koy seq mooy ñu nekk ci pouvoir bi ak euh, ñi nga xam ne ñooy xëccoo pouvoir bi ñoo jàkkaarloo waa pouvoir bi muy ku jégi ak pouvoir bi euh, kenn ku ne ci ñoom am na loo xam ne euh, war na la bu dee pouvoir bi d'abord nañu fexe ba élection yi doon élection yoo xam ne day nekk safa ay am safafiya mooy transparence nekk yoo xam ne day nekk xurra yu libre jaar ci yoon loolu suñ ko defee jàmm rek mooy am maa ngi fàttaliku loo xam ne Serigne Saliou daf ko daan nettali lu bari ci élection defe naa ne xam naa suma ma jumul 92 euh, daal élection yooyu nga xam ne moo jiitu woon euh, alternance bi dafa am waa ju ñëwoon benn tubaab bi muy tàggoon nag na ko am na laaj boo xam ne daal bëgg naa la koo laaj bala bala bala ñoo dem te bëgg naa nga tontu ma ci mu ne ko mu ne ko daal damaa gis élection yii nii ñëpp joxe nañ seen féete mm-hmm. kilifa yu bari wax nañ fañ féete te yow dégg guma nga wax ci dara mm-hmm. léegi nag moom bëgg nga ba xam yow nga wax ma daal fi nga ci féete sëñ bi tekk ba càgg mu ne ko ñiy xëccoo réew mi de kenn ku nekk ña ca sa ginnaaw dama caa amul njaboot moo tax mënuma cee faral kenn te boo ko xoolee loolu mooy li parti boo ci gis am na bu ca bu ne mbooloo mépp daanaka xaaj la murit la ñu doon murit doon kon mënuma ci faral kenn kon daal léegi ki ma ciy faral mooy ki réew mi bëgg ginnaaw ñoom ñëpp sama njaboot lañ kañ bëgg nag koy ko mooy kama faral loola nag na ma koy xamee mooy élection yi doon yu leer. jaar ci yoon su jaaree ci yoon fal damay daal di xam ne kooku mooy réew mi bëgg. kooku mooy ki ma àndal. ko waxee teg bu ci waaw ah, mu kii di diplomate dëgg la. loolu mooy indil réew jàmm. élection yu leer. boo xoolee Égypte kii Algérie. parti boobu damay fàttali nu tuddati benn xaaj jiite woon ak kii ak Abassi Madani nga xam ne dañoo dem ba élection yi jàll ñu gàñe ñu ne leen gàñewu leen gis nga diggante bi li faatu ci ay bakkan ak la fa la fa kii nam toll ak yeneen réew yu bari yoo xam ne mën nañ ko ca misaal yoo xam ne élection yi ñàkk ñàkk jaar ci yoon rek indi na ay guerre yu bare bare bare bare yoo xam ne ay nit bakkan yu bari faatu ci moo tax kon loolu toujours dañ ko war di bàyyi xel fexe ba élection yi doon élection yu leer yu jaar ci yoon su ko defee itam ñii nga xam ne ñooy nekk ci li ñuy wax conseil constitutionnel ñu doon ñoo xam ne nañuy nañuy nañuy nañu nañu ragal yàlla ci li ñuy def mm-hmm. atte yu ñuy génne mu doon atte yu wér mm-hmm. yoo xam ne day jaar ci yoon mm-hmm. bañ a faral kenn bañ a bañ bañ am fenn fu ñuy jàng jëm loolu suñ ko defee jàmm rek mooy mooy mooy mooy mooy mooy li am waaye su ci yuy njaaj amee ci benn côté rek loola mën naa indiwaat musiba yoo xam ne euh, wala yaasu billah moo tax kon ki nga xam ne moom moom la nguur gi nekk ci loxoom muy pouvoir bi loolu ñoom seen liggéey la nañ fexe ba jamono bu nekk bureau de vote yëpp fépp ña fay nekk ñu sant leen ñu ñu ñu ñu ñu ñu jaar ci yoon mm-hmm. mandataire ya nga xam ne ñoo fa nekkal yeneen parti yi itam ñu fexe ba yaatal leen fa ba ñu ubbi seen bët di gis. mu raxiboon yi nga xam ne ñu ngi jóge ci àdduna bi yëpp. ñoom seen bët di gis. ba luy génn da mu wóor leen ne lii. mooy moo moo mu amee rek ni lañ ko génnee. su ko defee su boobaa dara ci ay coow euh, mën na bañ a loolu nag yaakaar naa ne mm, ñu ngi ci am yaakaar yàlla mën na ci def tawféex. ba mën naa mu demee noonu. ñi nga xam ne ñoo nekk ci euh, kujje gi itam. ñu xam ne euh, nguur yàlla koy joxe ñu ànd ak dal ak tekk ak teey te respecté ñoom itam lii nga xam ne mooy li ñu tëral ñu di ko wax conseil constitutionnel euh, loo xam ay institution la boo xam ne réew mi ñoo ko bokk xam nga euh, charia damay wax ne charia ni ni ni nga war a respecté charia ni nga war a respecté itam luwaay réew mi nii li nga xam ne ñëpp dañ cee dëppoone lii nii la war a tëddee. xam nga ci misaal fi ne boo booy dawal bañ a am permis bu ñu jàppee dañ lay tëj. waroo dawal bañ am permis boo agsee ci feu boo xam ne dafa rouge waroo burre da ngaa war a taxaw bu bu bu bu verte nga jàll. bu rouge nga jàll fi ne noonu. dafa araam ci yow ngay jàll ni mu araamee ci yow ngay jëw nit ak di def lu noonu yii itam ay aada yoo xam ne dañ ci dañ cee d'accord d'accord ne nii la war a tëdde ndax ay maslaha kon da ngaa war a respecter loolu itam kon. so su sëriñ Baara Xari Fall. radiyallahu anhu dafa am dénkaan bu ko sëriñ bi doon dénk. mu ngi ciy wax lu mel noonu. boo xoolee fii mi ngi wax ne na mi ngi naan ko aussi que bi fa tatawaqafa an kulli fihlin aw xawlin xatta taarifa misaanahu ala alkitaabi wa sunnati aw al xurf li an al xurfa min jumlati sharia atte yëpp euh, boo ko xoolee fukk la fi ñuy balaloo at yi boo demee ci usul xam-xam usul dañ la wax ne fukk masadir yi al masadir al hashra nga xam ne boo dañ koy limal alxuraan moo ci jiitu sunna moo ci tege euh, muy xadis qiyaas moo ci tege xorfu mazhabu sahaaba istihsaan yooyu noonu lañ koy limal bi mu fukk yooyu nag orf bii da cee bokk mooy réew ma nga nekk yaa nga xam ne maanaam d'accord nañ ci ne nii la war a doxee boo ñoom ñëpp ñu juboo ci yow da nga ko war a respecté loolu mooy li nga xam ne toujours dañ koy woyefal dafa ne lii institution yi nii dafa dafa woy fekk ginnaaw ñëpp ànd nañ ci rek loi la boo xam ne dañ ko war a respecté ni nga war a respecté charia mm. loolu day mat di bàyyi xel jamono bu nekk mm. moo tax kon Hmm, bu fekkee bëgg nañoo def dara fenn ah dama man jànguma droit waaye vérifié nañ ba xam ne léegi lii kat euh, lii nee nañ euh, droit maye na ñu def nangam. nañ leen may ñu def ko. su fekkee xool nañ ba ne droit mayewul ñu def nangam ak nangam. préfet bi ne bu ñu def loola. kenn amul droit def loola. loolu mooy li nga xam ne noonu la ñu war di doxee. ki ki nekk ci pouvoir bi balaa tere na xool ba xam li dëppoo na ak euh, luwaay réew mi mu doog ko tere bu ko xoolee ba mu dëppoo ak luwaay réew mi mu tere ko kii nga xam ne moo nekk ci ku jege buñ ko teree moom itam na bàyyi loolu suñ ko defee rek jàmm na ñooy waaye su fekkee dem nañ nag ba léegi institution yëpp léegi ñu bafouillé ko amatul banaliser lépp amatul kenn respecté te dara kon li ñuy wax baddu baddu gu dagg mooy daal di am moo tax ko nag il faut ñuy bàyyi xel yu mel noonu te di ko respecté eh, te xam ne itam lu ñu yàq ëllëg si biir ñoo koy defaraat ñu kenn ci ku jegi ay ànd ak ay militant ñu toj ay kaar toj ay nangam yoo xam ne yëpp public bi ñoo ko moom boo toogaatee nga xam ne da nga ay at di defaraat rek loolu du am benn njariñ ba tax kon ànd ak teggin mm, ci eh, woote nañ la ko digale su ko defee toog xaar résultat yi lum la jox nga d'accord ci loola. su fekkee eh, yàlla def na ngay président ngay président. soo dul président nga muñ. boo gisee ne maanaam mën nga ànd ak président bi toog. liggéeyaat nga dugg ci biir gouvernement bi la nga doon yéene. ne danga bu ma faloo dinaa def nangam te defoo ko. ah bu la président bi wax nga ànd ak moom def loola. ci post ba nga ba xam ne maanaam mën ko caa defee. bu la ko joxee nga liggéeyal ci réewam àggale ci sa yéene. su fekkee yéene rek nag yéene liggéeyal rek rek moo moo moo lii la tax a jóg. kon ci gàttal loolu. mooy li nga xam ne war nañ koy bàyyi xel jamono bu nekk. am na dénkaan boo xam ne sëriñ bi daf ko dénkoon taalibe yi lépp day delluwaat ci li ma waxoon ci xonf bii léegi rek ndax sëriñ bi moom loolu daf ko respecté woon. ñama jamono yi fi nekk booba ku xam na ne ni bañ woon yéefar ak ni woon mm, kii waaye ginnaaw tubaab yi booba yàlla seen loxo ci moom ci ñoom lañ ko teg. ci réew ñoom seen loxo. Euh, réew mi ci seen loxo la ko yàlla teg. Mhm. moo tax lu ñu proposé sëñ bi. Mhm. sëñ bi da ànd ak ñoom su fekkee ërtiwul ak lislaam mhm. gis nga bi mu nekk Jolof. ñu jékki-jékki ne ko mbooloo mi fii ñëw dañoo bari nañu mi nit nañ fi ñëw dafa bindu leetar ne léegi kon digal naa murit yëpp nañuy toog seen kër. lim boobu di fa ñëw. bi ñu demee ba guerre mondiale bi ñu ne la ñu yóbbu ay kii dafa joxe ay ay toujours loo xam ne maanaam maslaha la parce que loolu mooy li ñuy wax maslaha mm-hmm. boo demee ci usul maslaha mursala mm-hmm. maslaha maslaha bunt bu mag la mm-hmm. looy loo xam ne yàlla àdduwu ca waaye dafa xam ne jullit ñi mën nañ ko lijjanti seen bopp mu bàyyi ko noona bu ko defee nag léegi ñoom bu ñu ijtihaad yi xool ba lu ci dëpp ak lislaam ñu def ko muy njariñul nit ñi parce que lislaam li ko tax a jóg lépp mooy loolu njariñul nit ñi rek jiñal leen lor ak xëccal leen njariñ loolu nag lii lii nga xam ne àdduwu ci itam dañ gis ne loola maa nga ca. Mhm. dañ koy daal dugal ci biir lislaam moo tax kon moom lu ñu ko mosaan a proposé te ërtewut ak lislaam mhm. da ci ànd ak ñoom mhm. su ërtee ak lislaam nag moo taxaw opposé. moo tax mbiroon ndar boobee ngay dégg ak yooyu yëpp. dañoo dem ba juyoog loo xam ne maanaam. ndigalul yàlla la mu daal di taxaw. bañ moo tax kon fii am benn lettre boo xam daf ko bind. lettre bi mi ngi nii mu ne fa inni amartu kulla man yaddahi ataalluqa bi bi taatillahi wa taati rasulihi sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa barak wa taaddubun maa ruasai ahli l ard bi an yajtaniboo maan kulla ma yuaddi ila mafsadatin fi lxaali walmaali wa an yajtaniboo kulla ma yuaddi ila tasalsulin aw fasaadin fi l ard fa man raa xatti haza aw raa xattan nuqila minhu walaw bi wasaita man yantasibuuna ilaya aw samiahu wa xaalafahu falaa yeloo mën na ilaa nafsahu mu ne maa ngi dénk mboolem ñi nga xam ne dañu aju ci man li ma leen di njëkk a dénk mooy nañ topp yàlla topp yonent bi sallallahu alayhi wa su ko defee nag ñi nga xam ne ñooy kilifa yi àdduna yi ñu ànd ak ñoom ci teggin te li ñu ànd ak moom ci teggin mooy lépp loo xam ne luy waral ak yàq la ci àdduna ak alaaxira nañ ko moytandiku waaw lépp loo xam ne luy waral ak rëgg rëng rëng la ba yàq nañ ko moytu nañ ko bàyyi noonu la ko waxee loolu nag yu baree bari mën nañ ko ci dugalaale ci biir daane koo xam ne gis na sama mbind mii nag wala mu gis copie boo xam ne maanaam mën naa banañu doon sama mbind waaye copie nañ ko mu wóor ko ne ci man la jóge rek dégg nga ba noppi def lu jiyoog loola lu ko ca dal ba mu yedd ku dul boppam nii la ko bind. kon nag loolu jamono bi ñu toll war nañ koy bàyyi xel. te ànd ak xel yi jiital xel yi ba ñu jiital xol yi. ci activités yu mel nii. ndax kat ñii di xëccoo réew yi mooy candidat yi ñun waruñu waru ñu leen a gënal. seen suñu ndey ak suñuy baay ak suñuy xarit ak suñuy mbokk. te jamono bii gis nañ ne bu agsee lu bari ci ak xarit dana yàqu lu bari ci ak mbokk dana yàqu. koo bokkulul parti def ko am noon donte yéen a bokk baay walla yéen a bokk sëriñ wala yéen lu mën a doon sam noon lay doon loolu baaxul ndax ñoom ñii nga xam ne ñooy leader yi su fekkoon donte maanaam ànd ànd ñàkk nañoo ànd loolu wax naa ko bu yàgg bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu ñàkkee ànd ba tax yéen ñii di militant yi ngeen ñàkk ànd itam na nga xam ne ñoom ëllëg seen dana ñëw seen i intérêt dajalawaat ñu ànd yéen ngeen teqali ko. da nga ko leader nii ba tax nga fàtte fàtte sa mbokk wala nga fàtte sa sëriñ wala nga xeexak sa cousin wala sa lenn. Mm-hmm. léegi si biir leader boobu nga xam ne moo moo moo taxoon ngay xeex sa cousin bi ànd ak ko ko beneen leader ba ci def. Mm-hmm. wala nga jékki gis ko dugg ci gouvernement bi. Mm-hmm. waaw boo defee loolu nag nga nga ne fa nga nekkoon. moo tax loolu di jiital xel yi. da ci baax ci jamono bu mel nii. loolu mooy li nga xam ne militant yëpp war nañ ko def. nguur gi ñu góor góorlu ci yërëm peuple bi. te bañ di utiliser force jamono bu nekk. Mm-hmm. rawatina nag di dugg ci ay jàkka. di ko profané comme noonu ñu ko waxee léegi. Mm-hmm. yooyu yëpp ay yëf yoo xam ne. Mm-hmm. bu ñuy eh, disperser dañuy war a ànd. ak ak ak dal. te xam ne policiers yooyu koy def. ñi ñuy disperser seen i cousin ak seen i mag ak seen i rakk ak seen lépp ñu ngi ci biir ñi ñuy disperser. ñoom ñoo ñëwee nañu xam ne policiers yii nga xam ne ñoom la ñuy sànni xeer. seen i cousin ak seeni ak seen i lépp ngi ci biir. Mm-hmm. kon lépp benn xeet bi la. Mm-hmm. nit ñi respectante. Mm-hmm. te kenn ku nekk la ngay def nga teg ko ci yar ak teggin ak tey. bu ko defee rek yàlla mën naa def. ñu dugg ci ak jàmm. génn ci ak alhamdulilah rabbil alamin kon li ñu def mooy ñaan yàlla def ci tawfeex. bañ dugg ci ak jàmm génn ci ak jàmm. te yenn bakkan bañ cee rotati yenn yaram yi bañ cee gaañooti. te mm, mm, eh, mu doon loo xam ne ni ñu ko waxee léegi rek day jaar ci nañ ko bëggee ba kañuy mu wóor ñu ne kii mooy ki ki peuple bi bëgg. Mm-hmm. waaw nga xam ne élection yi doon yu nekk yu yu leer. Mm-hmm. kon daal loolu mooy liñ mu jëlee di leen sant yéen itam yéen waa Asar Touba point com. Mm-hmm. waaw ñu ngi lay sant yow sëriñ Lamine sant ñu ngi ko seqal mooy sëriñ Cheikh Mbacke moom di ñaan yàlla defal leen ci tawfeex. di mm, xam ne itam loolu liggéey la boo xam ne mm, jamono bi ñu toll média bi day loo xam ne dafa bokk ci li gën a gaaw ci tasaare euh, liggéey bi sëñ bi mm-hmm. ak liggéey lislaam ji mm-hmm. ndax yonent bi sallallahu keroog bi mu xajatul wadaa mm-hmm. dafay discours am bu gudd nga xam ne tënk na ci lu bari ci diine daf ne kii ki fi nekkul kii fi nekk na jot li ki fi nekkul ndax léeg-léeg sax kat nit mën naa jël dara jottali ko keneen kooka man gën koo jariñoo sax ci moom mm-hmm. mm-hmm. ruba xaamili fiqhin ilaa man woo afqahu minhu léeg-léeg nga jël dara waxaat ko keneen kooku am ci dégg boo xam ne yow mi ko wax amu sax amu ko ci moo tax kon jottali mooy média communication rek ca xajatul wadaax la tàmbale woon mm-hmm. waaw loolu kon def ko digal ñëpp ñuy jottali. ko xam lu baax nga jottali ko sa moroom ñu daan ko def par ay mbooloo. kenn nit di wax ak juróomi nit kenn téeméer bu mujj. ñu dem ba kenn nit di mën a wax ak millions yi nit. ay millions yi millions. loolu nag kon mm, ñu bañ ko bàyyee tubaab yi waaye. fexe ban ñu nit li ci am ci lu baax ñu di ko ci def di ko tasaare. moo ci suñu warugar. sëriñ bi nee woon man kaana bil imaani wal islaami wa ahsanil ihsaani saa ihlaami fala yamul fal ilaahu soo ihaan lahu alayhi wa ni'mal mustahan dama fàtte xab yi waaye noonu mel noonu la ko euh, képp koo xam ne yaa ngi xamle imaan ak islaam ak ihsaan mhm. bu yokkat mhm. yàlla koy dimbale mhm. loolu ixlaam la jëfandikoo foofu ixlaam moom li ñuy wax communication léegi média waaw mm-hmm. baatub boobu nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo léegi jublu ci média mm-hmm. sëñ bi loolu baatub ixlaam boobu la jëfandikoo foofu waaw mën naa am jubluwu ci média waaye mm-hmm. tombe na ak arab jamono ji léegi kon ñi ci yëngu ci tasaare ci góorgóorlu bu baax te xam ne loolu mooy liggéey bi yàlla nañ ci yàlla defal tawféex te taxaw ñu saa yore na bàttin salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Khalil sant nañ bu baax ñu ngi dellooti di sant di siyaar bu baax a baax baax ñu di leen dellu rek di leen fàttali ne leen ñu ngi woon ànd ak euh, sëriñ Khalil Mbacke fekk ko fii ci daaraam euh, daaram ji nga xam ne da ko tabax ngir jàng ak jàngale fii ci jànnatul Mahwa ñu fàttali leen ne seriñ Khalil Mbacke moom soxna moom soxna Maymunatu Mbacke mu sëriñ saaliw ak euh, sëriñ Moustapha Hafsa mu sëriñ mu maam Thierno Birahim ñu fekkoon ko fii ci daaraam <clears throat> ànd ak moom waxtaan yi nga xam ne nii aju ci politique la gis nga leeral yi nga xam ne nii leeral na ko ci ku nekk mën na coo mën na cee jariñu ñu ngi koy sant ko gërëm di ko ñaanal xam-xam bi yokk yàlla guddal fanam euh, euh, may ko ak wér bi jaahi Seexul Xadim radiyallahu taala anhu kon mbokk yi ñi ngi woon ànd ak yéen fii ci seen émission alasar touba point com ci émission bi mu tuddee al academia ñu fekkoon fii Serigne Khalil Mbacke euh, ki nekkoon ci kàddu gi di Mouhamadou Lamine Touré ñi nga xam ne nag doo leen gis mukk te moo ñu ñoo tax ñu ngeen di ñu gis mooy Serigne Cheikh Sambo ak Serigne bu Mar ñoom ñoo nekkoon ci côté technique bi pour alasar leen di delloo di leen jàppale ba beneen yoon wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamina wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu